هذه البقعة المباركة تحية خالدة من الله سبحانه وتعالى قائلا لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا همة شيخ احضر لنا بهذا المحضر ولتعتفي بنظرة تأتي لنا بظفر مكي نيني سيتان باي باي ولا برهام universel media ñu ngi leen di nuyu di leen ziar ci programme bi wala rubrique bii ni nga xam ne ñu ci waxtaanee yóbbalu Taïba Niassène ñu ngi leen di nuyu yéen di leen ndokkeel ci weeru màgg bi weer bi nga xam ne ci la Maulana Cheikh Ibrahima Niass radiallahu anhu gane àdduna mu nekk weeru chehru rajab chehru rajab nag buñ delloo ci lislaam da ngay gis ne yonantu bi sallallahu alayhi wa sallama ci lañ ko rañaanee moo tax alquran di wax ne subhaana alladi asra bi abdihi laylan ila almasjid min ila almasjid alxarami aw subhaana alladi asra bi abdihi laylan min almasjid alxarami ila almasjid alaqsa alladi barakna xawlahu weer boobu nga xam ne si la yàlla rañaanee yonentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallama weer woowu nga xam ne dafa bokk ci ñeenti weer yi nga xamante ni xarama allahu fiha alqital yàlla da cee xaraamal xeex weer woowu nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne ne shahru shaaban shahri shahru ramadana shahru ummati shahru rajab shahru rabbi mu ne shahru shaaban weeru shaaban weer la sama weer la man yonentu yàlla muhammad mu ne shahru ramadan weeru sama xeet la waaye shahru rajab weeru suñ borom la subhanahu wa taala ci weer boobu ci la Mawlana Cheikh Ibrahima Niass radiyallahu anhu gane àdduna mu ngi gane àdduna ci jamono joo xamante ni jamono ju xat la nekk ci ay tartat ci jamono jooju ci la Mawlana Cheikh Ibrahima Niass radiyallahu anhu gane àdduna wax naan bi Tayba Ñaseen tafaddulan min juudi rabbil alamin mu ne xad wulida gaay na juddu na kenn soppe ba wa taqasa allahu ibrahima xalila fan la gane àdduna mu ne bi Tayba Ñaseen ci dëkk buñ naan Tayba Ñaseen tafaddulan mu nekk ngëneel boo xamante ne dafa jógee suñ borom subhanahu wa taala waykat ba waxaan na ko feneen ne bihi Tayba Ñaseen tafuuzu faxran li saakini saalumi wa bilaadi siin mu ne bii si tay bañ a seen tafuusu la laa xëy faxaran puukarewu te dañuy wax ne puukarewu ñaari anam la mooy faxrun madmumun wa faxrun mahmudun amal faxru al mooy puukarew boo xamante ni lu ŋàññi la mooy ngay puukarewu loo xamante ni yàlla neexul ko waaye faxrun al mahmud mooy ngay puukarewu loo xam ne suñ borom subhanahu wa taala da koo neex ndax yaa ngi yëkkati diine lislaam kon puukaréew boobu noonu waa siin ak waa saalum di puukaréewoo mooy yeneen Cheikh Ibrahima Niass mi nga xamante radiallahu anhu mi nga xamante ni moo gane àdduna ci weeru shahru rajab kon loolu xéwal la boo xamante ni yàlla suñ borom subhanahu wa taala moo ko jagleel xeet bi te da gis ne yàlla bu naree namalee amal mbir mu am njëriñ da gis da jagal jagleel weer boo xamante ni weer bu màgg la jagleel ko bés bu màgg jagleel ko timin waxtu bu màgg nga gis ne yii yëpp jagleel na ko Mawlana Cheikh Ibrahima Niass radiallahu anhu jagleel na ko weeram muy weeru rajab mu jagleel ko bés bu baax nga xam ne bokk na ci sunnay woor ñuy woor bés boobu muy bésu yomul xamis jagleel na ko tamit waxtu waxtu boo xamante ni yaa suñ borom subhanahu wa taala gëñ na ci mi ngi wax naan wala asr inna al insana la fi xusr illa alladina amanu wa amilu salihati wa tawaasaw bilxaqi wa tawaasaw bisabri usuli yoon yi dañuy wax in inna al insana mooy al googu naan alu istixraaf yi jinsi la dafa dugal ñëpp waaye après mu def lu ñu naan seeti ne illa alladina amanu lu dul xamante ni gëm nañ yàlla wa amilu salihati wa tawaasaw bilxaqi wa tawaasaw bisabri ñett yi yëpp suñ borom subhanahu wa taala defal na ko Mawlana Cheikh Ibrahima Niass radiallahu anhu lu tax mu defal ko ko ndax Baay Niass dafa ñëw pour jàng mbooleem damm-damm yu nekk ci lislaam ndax moo ko wax ne aw jadanii xaqan li jabril kasri fa innanii wakiilu sirri sirri man baay amal neen ma pour ma jàng damm-damm yi te man maay ki nga xamante ni man man lañ dénk mbóotam mbuuti jàng damm-damm yi mooy lan déggin bu bees bi nga xam ne Mawlana Cheikh Ibrahima Niass indi na ko ci diine lislaam indiwul diine ju bees waaye dafa indi déggin bu bees ni mu daan firee alquran wuuteeg ni ka ni ñëwee ci lislaam bàyyi Niass indi yoon boo xamante ni moo dëppoo li lislaam wax indi ñu timin li nga xamante ni mooy faydatu al ibrahimiya kon yooyu yëpp da gis ne bàyyi dafa ñëw pour jàng yooyu noonu ba mu ñëwee mooy lan la def in jabara kusuurul islaam islaam dang damu damu bi mu amoon ba mu ñëwee ba Mawlana Cheikh Ibrahima Niass ñëwee ci la loolu yépp daal di mujj nekk lu jaar ci yoon nga gis ne kon dafay méngoo xadis boobu noonu yonent euh, yonentu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam daan wax ne yabatu llahu ala rasi kulli miati sanatin min ummati man yujaddidu laha amra diiniha yàlla dafay yónnee ci sa téeméeri at benn si xeetam bi koo xamante ni dafay ñëw beesalaat diine ji du indi diine ju bees waaye dafay ñëw beesalaat dégg-dégg yi ndax bàyyi na mu déggee woon alquran ak nu mu déggee woon sunna si jamono amul kenn ku ko gënoon dégg te jamono du indiwaat keneen keneen ku mel ni moom ndax koykat ba wax na ne xalifa zamanu la yatiyanna bi mislihi kadabat yaminuka yaa zamanu fa kafiri jamono gëñ ne ne dana indi keneen ku mel ni Cheikh Ibrahima Niass waaye dafa dem ba gis ne lott na mëntu koo indi waykat bi na ko kazabat yaminu ko yaa zamanu fa kafiri li nga wax nii de wax na loo xamante ni doon nga sa si ëkk te ku wax loo xamante ne nekkul da ngaa war a kafaara kon kafaara yow yow jamono kooku mooy Mawlana Cheikh Ibrahima Niass ñu war a waxtaanee ci yóbbulu Tayba Tayba Niassène ngi dëkk boo xamante ni dëkk bu yàlla barkeel la woykat ba wax na ko ne haaja fi l qalbi kulla shajwin dafinin mawlidu cheikh inda Tayba Niassène mu ne xaaja jeqi na fil qalbi ci xol ba kullu shajwin dafinin bépp mbëggeel boo xamante ne buñ kasse woon la buñ dencoon la rek mu ne jeqi na kañ la jeqi mu ne ba juddu Mawlana Cheikh Ibrahima Niass radiallahu anhu ñëwee ci la loolu jeq jeq jeqi moo taxoon mu dem ba ci kanam mu ne ayuhal ayuhal mawlidul karimu fa inni bika law zu lawatin wa shawqin rahimin yow juddu yow mawlidu nabil ka yow mawlidul karimi yow mi nga xamante ni yaay bésu juddu Maolana Cheikh Ibrahima Niass man de ci yow am naa cofeel goo xamante ni cofeel gu may lakk la lawaa bu ko arab waxee mooy cofeel goo xamante ni dafay lakk xol kon nga gis ne dëkk boobu dëkk bu barke la moo tax bu jegee rek nga gis woykat ya ñi nga xamante ni yàlla soppaloo na leen Maolana Cheikh Ibrahima Niass nga gis ñuy wëy dëkk boobu bu barke boobu noonu ci ay waaridaatu ilaahiya ku ci mel ni cheikh wax naa cheikh xaani léegi ku ci mel keneen ki mel ni cheikh Mouhamed bun cheikh Alxaaji Abdullahi muy wax ne inna alfata man ida naadaahu mawliduhu labba nidaa wa illa lam yakun bi fata inni inni ila cheikh maachin wa rafiqu maci walmuqlataanu ida yamamtuhu hamata mu ne daal as cam dëgg dëgg dëgg buñ ko bëggee xam mooy koo xamante ni bu wootee juddoo moo Maulana Cheikh Ibrahima Niass saa bu ñëwee woote rek mu wuyu juddu boobu noonu mu ne kooku mooy as cam as cam nag buñ ko waxee mooy koo xamante ni xolam dañul di aju suñ borom subhanahu wa taala koo xamante ni dafa jeex ci moo suñ borom subhanahu wa taala jeex ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne kooku. mooy as dëgg-dëgg bu ñu wax mbiram lépp da ko jël def ko jëppal ko suñ borom subhanahu wa taala as boobu noonu la waa di junj foofu ne inna al fata man ida naadaahu mawliduhu ba mu jeex ne as daal mooy kooku labbaa nidaa wa illa lam yakun bi fata bu nekkul ko bu nekkul loo rek bu wuyuwul woote boobu rek nekkatul as cam mu ne kon nag ma ne man de man ila cheikh machine ci Taïba Niassène laa jëm ci Cheikh Ibrahima Niass laa jëm ànd ak samay sett ya samay àndandoor ya maa ngi ànd ak ñoom waaye nag sama ndabu rongoñ yi ba di mu ngi tuuru wal muqlataani ida yamamtuhu hamata mu ne sama ñaari ndogu bët yi daal mu ngi tuuru saa ma jubloo dëkk boobu noonu dëkk bu sell boobu noonu sama ñaari rongoñu bët yi ñu ngi tuuru nga gis ne kon lu ko may mooy cofeel gi nga xamante ne am na ko ci Mawlana Cheikh Ibrahima Niass li ko ko dëkk bu barke boobu noonu nga xam ne dëkku wilaayatu la moo ko may moo taxoon mu dem ba ci kanam mu ne saaxi qif bi bihi wa affiru xaddi wa jufuuni min turbihi wa jabini saaxi ee yow àndandoor sama qif bii wa bihi taxawal ñu dem wa affiru xaddi may teg sama lex ci suuf ju barke ba wa jufuuni ak sama mbaru bët ya min turbihi ci suufa Mawlana Cheikh Ibrahima Niass radiallahu anhu wa jabini ak sama jëm neen dem tay bañ a seen nga xam ne mooy dëkk moo Mawlana Cheikh Ibrahima Niass dëkk boobu day boo fa àggee mu ne lan ngay def mu ne ko sama lex bi daal lay jël teg ko fi suuf soono maanaam di doxe mel ni kuy doxee lex lim ci double rek mooy cofeel gi nga xamante ni am na ko ci Mawlana Cheikh Ibrahima Niass dëkk bu barki boobu nga xam ne képp ko fa dem sa soxla dina faju ndax Baay Ñas moo ko wax naalal a man qad ataani awwala wa axiran ya axiran ya awwala naala am na al munaa kan man ida ataani naa leen mën a man xad ataani ki nga xam ne dikkal na ma moo xam ku njëkk la ki ak keneen ku ci topp ak ci mujj ñëpp ku ñëw rek da am sa càkkutéef bi nga xamante ni moo la taxoon a jóg Tayba kon nag bu ñuy dem Tayba ñu seen neen li nga xamante ni mooy dëggu ngëm goo xamante ni ngëm goo xam ne dafay ngëm gu sell la ndax lépp loo xamante ni sellul rek loolu mënut a continuer ndax arab dafay wax ne maa kaana lillahi daama wa tasal wa maa kaana li gayrillahi inqataa wa fasal lépp loo xamante ni da koo def ngir yàlla rek loolu dafay continuer dafay jokk waaye lépp loo xamante ni nekkul ngir yàlla rek loolu dafay dagg te du nekk luy continuer kon moo tax yàlla sax ba mu ñu digal julli sax ba mu ñu digal ñu koy jaamu dañoo digal yoo xam ne lu sell la wa maa umiru illa li yaabudu laha muxlisina lahu diina xunafa kon lii ñuy jëm nii tay ba ñu seen gi neen dem ànd ak yéene gu sell ndax liñ bëgg am ñu mën koo am xam ne ku ñuy demal yàlla dénk na ko lépp dénk na ko lépp lépp luñ soxla foofu lu nekk rek dinañ ko war a mën a am ci moom te shakka amul sikki na dinañ ko am foofu noonu ndax ñaan yooyu mu wax ci rabbal ibadi rek doy na naa leen mun a man qad ataani awalan wa axiran yaa awalan yaa axira kon loolu mooy war a ne buñ demee ànd ak dëggu kon taalibe dafa war a nekk koo xamante ku dëggu la ndax bañ la na nga sàkku sëriñ wax ne la sëriñ yi nga war a wut watlub murabbiyan xabiran naasihan kaamilal irfaani imaaman saalihan maliku nafsak fala tudabbir wakun kamiyati dawaaman dawaaman tuqtar mu daal booy ut sëriñ utal sëriñ boo xamante ni am na ñeenti melukaan yii watlub murabbiyan koo xamante ni murabbi la koo xam ne da lay tarbiya dégg nga te Mawlaana Cheikh Ibrahima Niass kenn ku ne xam na ne tarbiya la boo xamante ni dafa tënk si alquran ak sunna moo tax waykat bi ne cheikhun ida tarabba yakunu ka ahmada wa ida takallama kaana misla asma'i mu ne cheikh la sëriñ la boo xam buy yar da ngay mel ni dafa mel ni cheikh ahmada tijani waaye nag wa ida takallama kaana misla asma'i bu waxee nga gis ne moo gën a fasaasa asma'i waykat la woon ku fasaaxoo la woon si jamonoy euh, euh, ci arab ku mënoon wéy la ku fasaaxoo woon mu ne sax bi wax da nga gis ne moom mooy raw asma boobu noonu buy yar tamit da ngay gis ne comme Cheikh Ahmed Tidiane wala nga ne comme yonent bi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ni mu daan yaree noonu daan yaree kon loolu murabbi la xabiiran koo xamante ni xam sa zaahir xam sa baatin naasixan koo xamante ni ku lay nasiixa la teg la ci yoon ndax sëriñ bu lay nasiixa teg la ci yoon kooku moo la war a jooyloo kooku moo war a moo la war a jooyloo ndax Baay Ñas wax na ko ci ruuxul adab ne warda cheikhaka walaw ab walaw abkaaka laakinahu qad hadaaka lil xayri wala nga ne laakinahu lil xayri qad hadaaka mu ne na nga warda cheikhaka na nga sàkk gërëm loo sa sëriñ na nga fexe ba sa sëriñ gërëm la walaw abkaaka donte sax da lay jooyloo waaye nag jooyoo na fekk chaque jour rek mu lay teg ci yoon te kenn sikkiwu ne Mawlana Cheikh ibrahim Niass si yoon rek la ñu mos a teg ndax boo mbiram lépp xaalam ak waxam ak jëfam lépp ci da ngay gis ne day juble ndax moo ko wax ne taqaadafahu l ajwaau sharqan wa maghriban yubiinul huda filan wa xaalan wa qaala mu ne jaww ji da koy sànniwante taqaadafahu l ajwaau jaww yi ñu ngi koy sànniwante bu jógee si réew mi dem ci beneen réew ngir lan tasaare diin islam sharqan wa maghriban sowu ak lan penku ak sowu lu ko waral mu ne yubiinul huda ngir jubal yubinu ngir mu jubal alhuda njub pour mu leeral njub yubinu ngir mu leeral alhuda njub fi'lan si ay jëfam wa qaalan wala nga ne ci ay waxam wa xaalan ak timin ci xaalam bi mu nekk moom Mawlana Cheikh Ibrahima Niass bu waxee rek nga xam ne kii lépp lu mu wax boo déggee alquran mën koo delloo ci alquran boo déggee sunna mën koo delloo ci sunna ci waxam timin bu waxee tamit nga mën koo delloo foofu xam ne alquran ak sunna rek wax tooginam ak nekkinam sax da gis ne du def lu wuuteeg sharia kun sëriñ boobu noonu boo ko amee bu juddoom jotee nga dem si bés boobu noonu mu juddu pour màggal juddu boobu noonu doo fa jëlee dara lu dul yokku saadatul abadiya ndax màggal juddu Maulana Cheikh Ibrahima nges du dara lu dul fàttaliku kan mooy Maulana Cheikh Ibrahima Niass fàttaliku lim liggéey si diine lislaam ko ñaata nit la dugal si lislaam doy na rek li waykat ba waxoon an cheyqi wa an sanadi man xayruhu fi bilaadi al-urubi yaftaxiru wala nga ne man xayruhu fi bilaadi al-urubi yaftaxiru laajal journal yi sal jaraida an cheyqi laaj ko kan mooy sama sëriñ kan mooy sama wéeruwaay mu ne man xayruhu fi bilaadi al-urubi yaftaxiru koo xam ne siiw na tasaaroon si arab mu ne laajal sal anhu misra kaza baxdaada tuxbirukum an cheyqina man bihi al-ajnaasu taftaxiru laajal waa misra nga xam ne ba mu fa demee jommal na leen ci xam-xam laajal waa Baxdaad daneen la wax kan mooy sama kan suñu sëriñ sëriñ boo xamante ni moo mbooleem nation bi moom la ñuy puukaree man bihi al ajnaasu taftaxiru mu yemul foofu mu ne sal magaariba ahlul qutbi qudwatina man fayduhu fi biqaai ardi yantashiru laajal waa Maroc kan kan dëkk ki nga xam ne mooy dëkk Mawlana Cheikh Ahmed Tidiane gannaaw ba mu jugee euh, Jazaïr fan la ñëw mooy Faas mu ne laajal ñooñ faas suñ xutba bi kan mooy kooku nga xamante ni faydoom tasaaroo na ci aala bi nga xam ne Cheikh Ahmed Tidiane moo ko junjoon ne taati faydatun ala ashaabi wa naasi ma yakuna fi gaayati min addiqi wa shiddati mu ne faydu dina ñëw te samay saxaaba samay topp ci lay nekk te dina fekk nit ñi nekk ci ay xat-xat mu ne laajal waa Maghrib mu ne salti min jazair jazair kan mooy Cheikh Ibrahima Niass nga xamante ni man xad fii faydihi al jinnu wal bashar nga xam ne faydoom bi jinni yi ak ñin ñi yëpp dugg nañ ci faydu boobu dem dem ba ci kanam mu ne la sal anhu makkata bal araba kullihimi man gayruhu fi qulubil xalqi mustaqiru laajal sax ñooñ makk wala nga laaj ñooñ arab ñëpp da nga wax da nga xam suñu waajur moom mooy kan moom mooy ki nga xamante ni xolu lu ñëpp si la sax laajal sal anhu awsa wasal jorma wasal yoroba man xubbuhu fi qulubi lxalqi yazdahiru laajal awsa yi laajal yoro bàyyi ak jormaa yi nga xam ne mosuñoo juboo bàyyi ñes ba mu ñëwee radiallahu anhu si la leen boolee tappe seen xol yi laajal ñooñu mu ne boo leen laajal ñooñu da nga xam ne ki nga xamante ni si xol yëpp cofeelu xol yëpp mu ngi si lay gën di mu ngi aju si cofeelu xol yooyu moom bàyyi ñes man xubbuhu fi qulubil xalq ku nga xam ne cofeelam mu ngi nekk ci xol nit ñi te chaque jour la yazdahiru yazdahiru dafay gën di yokku chaque jour kon kooku fekkee ne dañuy dem si juddoom amul sikk ne bu ñu demee ak yéene bu sell rek lépp lu ñu fa wut deneen ko am kon dañuy yemale fii nii lépp lu ci jub si suñu borom la lépp lu ci dëng su ñun la wa ma tawfiqi illa billah wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu